dafay jaadu nag wax dëgg yàlla ba ñu saa nekkee ci yooyu situation xëy na moom mm-hmm. dina ci xam na ci loo xamante ne ñun xamuñu ko ci voilà mm-hmm. waaw problème boobu de ajib rek moo rek moomu ci ëpp xam-xam moom mi mu dal leen ay xarit dama ne moom mi mu moom laa nangu ne moom ci ëpp xam-xam parce que lépp xam naa ko dama cee waxul nag départ ba fin audio yi wax ji lépp dama ko xam parce que man maay koo xam ne damaa bëgg su ma waxee kenn du ko weddi ndax kii ci sama côté su ma waxee lu man a weddi rek da koy daal di weddi moo tax damay bëgg wax loo xam ne du ko dindi. may ñu exclusivité bi. waaw xaaral rek mm-hmm. dinaa ci ñëw. Mm-hmm. Euh, aji xëy naa dégg ci réseaux sociaux yi ñu ne da doon xaru. bëgg bëgg xaru da doon xaru. Mm-hmm. taal na néegam ma xool xam ne dëgg la taal na néegam mbirum xaru nag bañ naa bañ xaru bañeel goo xam ne ku ma dégg da koy def sax dama ne daa def jéppi man. parce du yëfi nit. Mhm. moo tax nanguwuma ci woon wax mais li ma motiver sax ba ma ciy wax nii di euh, d'ailleurs ne woon naa du ma wax ci affaire yooyu mhm. mais dama gégg benn audio boo xam ne daf ma metti quoi parce que audio bi audio programme la mooy Adji Raby xuloo naag Gabriel Kane yónnee koy audio saaga ko xas ko yónneewaat ko beneen audio ne ko boo déggoon ne parce que pour wax ji bañ a sori sax damay dama leen digtal benn audio bi Mm-hmm. fii histoire bi commencé pour ñu xam ne man li may wax fortu ma ko damaa fekkee. Mm-hmm. yow la ñuy déglu léegi pour ma digtal leen benn audio bi. tubaab maa fekkee la bëgg ngeen voilà tubaab maa fekkee la bëgg. Mm-hmm. te man damaa fekkee. ñi nekk di génn di wax yëpp fekke wuñ. Adji Sarr dafa njëkk yónnee Gabriel Kane audio bii. yokkal volume bi. ndax loolu noonu nga mel dangaa mën a fen xaw ma loo ñamal Antoine wala xaw ma loo seq ak Antoine ba bu chaque jour rek ngay ñëw di ñu ñaan Antoine nee na Antoine bu la waxee daf ma jox 2 millions bu la waxee daf maa nu ñu waxee daf ma daf maa jox passeport waaye Gabriel yow bu ñu ma joxee passeport ak bu ñu ma joxul passeport Gabriel lu sa yoon ba ngay jox koo koo ko koo gis rek nga woo ko téléphone na ko jox nañ jox nañ ko de millions jox nañ ko passeport. baal mu yegg. mënut a yegg. Ah, xanaa mu jaam. dëgg la mënut a yegg. Mhm. dama lay wan rek fii la histoire bu commencé. audio bi ngeen dégg moo laa di ko teg ko moom saytaane la moom àdduna am yëpp nu mu xee am nga fay ko yàquloo ko nit wala nga fen fay ko mu fen des fois xaaral du ci aadamoo mhm. moo laa la gabee ko yónnee mhm. nga fay ko neexal ko wala nga kii ko nab nabbee ko mu mu waxal la li nga bëgg a wax gabi audio bi la ko yónnee ak fu ñu jaar ci àdduna lu ñuy dund yëpp yow boo déggoon ni sax man waxuma la waxuma la xar wala taal nekk boo ni sax vraiment teg fenn kese da nga waroon bàyyi lépp ñu ngi koy waxee da nga waroon bàyyi lépp làq ma si ginnaaw défendre ma boo pare ba loo loo ma buñ di wax wax ma ko mais nga dégg tëll rek ne damm na commencé di yàq. fii la yam déedéet am ngeen a xam nga nan ngay bàyyi ma rek xaaral xaaral nit eh. ñi li ñu bëgg a dégg déglu may ma may ma denc la ca des waaw déglu ma rek bàyyi audio yi jàll na nga li ngay def xam nga ko li la arrangé ngay def man invité laay ma arrangé laay def lii ma la ci kii sax mënoon naa cee bañ a fekk mënoon naa ñëw rek wax dem te kenn du ko di mais mais bu fekkee mais dama lay waa xaara xaara ko sor ko bul saboté mhm. dama mën naa ñëw rek wax dem te kenn du ko dindi mhm. te bu ma waxee ñëpp koy gëm mais dama lay wan ne histoire moo am seen diggante mhm. gabi nag bi mu koy tontu di ko wan ne maa ngi lay tontu mooy audio boobu ñuy teg naan ko nga dee dimbaliw ma la ok ak ñëwuma mel ne moom lay tontu waaye daa am lu gën a garaaw. li ma dégg ci audio bi dafa lu ma dégg ci bi lu ma gën a naqari. dane ko mm-hmm. boo ñàkkee xaalis rek nga ne da ngay loolu la ko wax waaw wax na ko loolu. Mm-hmm. pourtant moom mu ngi mu ngi ak 6 millions yi xale bi. 6 millions kan waaw. moo Gabriel kan moo yoral Gabriel kan moo yoral Adji Sarr 6 millions. ci nu mu demee 6 millions yi nu mu demee. bu leen ma dog nag. duñ la dog yow. fi laa ko yamale yow rek la ñuy a Amina noppi xam nga nee naa leen tey bu ma ñëwee sama autorité dama koy yéegal ba ci kaw <laughs> bugguma sorxo sorxo kenn sorxo sorxo la <laughs> man damaa ñëw ñoom ñaar fekk seen diggante ñi ngi ànd mm-hmm. kenn ku ne ci sa gémmiñ aji saar daf ne ma man de dafa am ku ma benn bonne volonté bu ma jàppale may ma dix millions mu ngi ci gabi mu téye mm-hmm. gabi ne ma am na ku may aji saar dix million mu ngeeg man mm-hmm. kon dèjà dëgg la sag weer dinaa ko jox huit cent trente par weer koy jox 830. Euh, non Gabi moo koy jox chaque weer deux 833000 yi mu ko mooy 10 millions yi mu ko dencal. Mm-hmm. aji fu mu jëlee 10 millions. déedéet bu du sori foofu yow wax naa la man du may commencé wax ngay surxul surxul bàyyi ba ma paree rek am na mm-hmm. daal fu mu ko jëlee loolu mënoo ko xam. Mm-hmm. léegi. yow aji xëyul ah, gontu xaaral xaaral xaaral. aji jaayul jaayul jët fu mu jëlee 10 millions. yu muy denc xëyul gontul ñu ngi koy am. yaa defal naa ko aja dañ koo. teg ci mais mais am na droit laaj waa léegi waa parole ñëwal continuer ci li nga doon expliquer. léegi li ma naqari sax ba wax tax ma wax loolu mooy mhm. moom nee na xale bi bu ñàkkee xaalis lay lay kii lay bëgg a xaru na ko jox xaalisam kon kay bu xaroo moom moo tax mu xaru tey aji bu xaroo ba dee ci ñàkk xaalis Gabriel tax mu xaru parce que mu ngi xaalisam yónnee na ko ci ñeenti weer léegi des na yaa xayti mu laa lu mat 6 million na ko dox xaalisam kon nag kon ñoom ñaar contentieux xaalis xaaral xaaral déedéet man damay wax ne baat bi mu wax noonu ne bu ñàkkee xaalis lay xaru mhm. baat boobu laa ñëw pour tontu ko mhm. ok parce que Adji xel mu sell dafa mas a enregistré Gabriel dem jox ko aji ma saaga xel mu la dal ci kawam saaga aji xas ko ne leen ne leen li ngeen def du ngeen ko warul ko def kon tey Gabi bu mel ne defee lu mel noonu jox ko Mollah Morgun mm-hmm. Mollah Morgun divisé ko yaa xayti Mollah waroon na ci boole ne ah aji mi kat yoreel naa ko xaalis naa ko ko jox génn ci moom nu golo xam boote doomam mais imagineel benn xale ñàkk bay taal boppam wala di taal néegam te yow nga yor xaalisam tëdd ci mais kon danga ko bëgg a jaxaseeg sénégalais yi soo ko joxoon xaalisam est-ce que dina xaru kon gis nga xoolal mbir mi nag ku ne nattu ko sa bopp aji day nekk koo xam dafa ma mas a wax benn affaire nee na moom bato la bu nekk ci géej digg géej gi paan mais kuy dépanne da ngay ñëw tànk mais léegi man leen naa leen naa lay laaj abo wala ngay wala wala wala ñu continuer aj li ko tax ak xaru mooy xaalis bu ko kel ameel wala beneen problème nga xamante ni dégg na ni Ousmane Sonko dina am droit bokk ci élection yi wala lan moo tax mu daal di man man mbirum xamul tax man mbirum xaru mi du ma ci dugg parce que xamul tax xaw ma motif ok mm-hmm. mais xam nga lan laay tontu lii xale bu jigéen bi wax ci moom mm-hmm. ne xaalis la ñàkk moo tax mu naan damay xaru moo tax ma mm-hmm. xamal ko ne kon wuré wa dem na këng comme xaalis la ñàkk te yaa ngi xaalisam jox ko ñépp am jàmm bu ko defee dootul xaru xale bu jigéen boobu laay tontu pour na ko jox xaalisam te maa ngi interpellé kilifay réew mi. ministre de la justice ba ci procureur de la république. Mm. xale bii di taal boppam kat am na ko ko yoreel xaalis mu ngi ci tëdd nag ko jox. waaw léegi li ma bëgg a li ma bëgg a xam mooy li ma bëgg a xam mooy ñoom seen problème diggante Adji Sarr ak Gabriel Kane mm. seen problème xaalis moo ko indi wala lan mooy problème bi. Ah, problème bi li ko jiitu problème bi daal ñoom. nee nañ neexootuñ mënatuñ ànd. parce que nit mënul ñëw Adji Sarr depuis ba mu nekkee ci benn nit di ko dimbali jàppale ko. Mhm. procès sax procès Adji Sarr sax kii Gabriel Gabriel Kane teew na fa ñu jékki-jékki rek. ba mettre ko en masse sax en nga xamante ne moo di. Gabriel Kane audition ba la doon ñëw procès bi ñëw waaw waaw audition ba léegi lan moo waral ñu jékki-jékki rek. waaw parce que ñaari jigéen la ñoom ñoo jotee man nee naa chaque fois li ñuy jote du ma ci dugg waaye daa am loo xam ne dama ko xam te war ko leeral mooy du ma nangu nag kenn du ci Adji Sarr rek même ku ko defoon beneen jigéen ma xam ci lu dëgg gi dama koy wax mhm. du ma nangu kenn ñëw bëgg dal ci kaw benn jigéen pour yëkkati sa honneur yow tax nga bëgg a wàcce bosam mooy yaa ngi xaalisam nga benn audio wan ne moom dalay ñaan ndimbal mais nga koy toroxal ci ci ojo boobu nga mel ne moom ngay toroxal ba pare di ko wax ne boo ñàkkee xaalis ak nit ñee ñàkk fay dañ la waroon rey yooyu yëpp xam nga lu ko indee man lu xamul sama problème na compté xaalis bi jox ko bu koy saaga bu ñuy rayante sama yoon nekkuti mooy sama problème uh-huh. dix millions yooyu nga wax ñu fan la ko aji jëlee parce que aji kat yaa est liggéey na ko war a may dix millions non nit ku ko bëgg ka yéene ko mën nga ko may dix millions yéen tamit yéene leen ko ah non xam nga loolu mënuma ci sori te duma ci dugg xam nga non ma jee sore xam nga waaw bàyyi leen déglu ma taxawal nag wuyu ma wërsëgu yàlla moo ëpp fukki million fukki million dara wërsëgu yàlla la nit gis na ko yërëm ko ci situation bu muy dund yëkkati teraangaam ñaqam may ko kenn nag dencal ko vraiment suñ demee ba dëggoo ban situation la doon dund ba ñeeram non situation bi mu doon dund ñëpp ko xam am na golo yu jugoon arsalé wu ci kawam di ko xas di ko saaga mooy ex-Pastef di ko dik ay rey dajale seen benn mafia di dal ci kawam daa mbooj Baara Ndiaye Pape Alé Niang Ahmed Aïdara ñëpp sam ku dal ci kawam sama classe gi nga xam ne ñun suñuy nelaw doyul ñoo jugoon sax di ànd ak moom di ko daanu kon bu ko keneen gisee yéene ko jàmm. am na ñeneen ak ñeneen ñu ko yéene jàmm jël seen alal di ko jox. mais defal naa ko loolu mais mën nañ la jox alal mais quand même 10 millions c' est defal naa ko 10 millions c' est de l' argent. aywa ah, 10 millions ka ko joxe. du ah, dara abu ngeen defal naa ko mën na bañ a nekk dara. Ah, ci jeex na nag quand même 10 millions c' est tamit. aji mi ngi tëju ci benn pièce ci li nga xamante moom la ñu dégg aju génnul demul fenn. mënul génn xam mënul génn. te mënul recevoir n'importe qui ci biir këram. ah mais ku mu bëgg recevoir recevoir la. non non defal na pas n'importe qui pas n'importe qui. <laughs> ah seetal rek loolu moom jërë non pas pas n'importe qui aji du recevoir n'importe qui ci këram. parce que dañ dañ euh, dafa am na n'importe qui yu muy recevoir. man am na ñoo xam ne mu ngi leen di recevoir. non je suis pas na ñoo xam ne mu mm-hmm. doon sama xalaatu bopp duñ dugg këram. comme kan. non du ma tudd du ma fi nekk di tudd kenn mais là am na ñoo xam mu ngi leen di safar dugal leen ci boppam di ànd ak ñoom ñu fay dem man bu doon sama man ma am ci moom autorité. mais yow nga yow nee nga jege nga yow jege nga Adji Sarr am na ñu ma ko moytuloo woon dem na ba ci biir xam ne ñii la ma Abdou Nguer waxoon dëgg la mais defal naa yow jege nga Adji Sarr fidèle nga ci moom depuis lors yow pourquoi dénk ko la dix millions yi pourquoi jox Gabriel pourquoi jox ko ay ay ay famem jox ko eh. jox ko man Adji dëkkuñu yaayam mhm. Adji dëkkuñu maa moom téléphone lañ man mën naa toog ñeenti weer duma ko gis parce que man li may toog Dakar léegi daanaka bariwul. Mhm. des fois maa ngi Kolda bu tayee maa ngi tuubaa tayee maa ngi dakaar moom nag daa dëkkoon ak Gabriel benn kër. di yeewondoo mu nekk magam di ko jàppale gis na ni jox nañ ko lii bàyyee na ko ko ndax wóolu na ko ci. Mhm. mais dem nañ ba dëngoo te aji kenn mësul dégg ojo wala vidéo bu mu taxaw laaj ko xaalis bi. waaye loolu aji bu ko amee na ko wax parce que moom tamit dafa mel rusu rusuta wax euh, lu lu ko nit def xam nga moom rusu ko wax xam nga dafa amoon fi taxaw carrément ni man ni man Ousmane Sonko def na ma lii nit ñun deetu waay aji aji def na fi ci ngeen war a xam ne nag aji na fi live di tudd na a taxaw laaj nga war a xam ne nag kon moom xaalis àdduna taxu ko jóg kon heure bu fekkoon loolu la mu ngi rayante Gabriel dem tribunal yéeg a ko wàcc ne ko jox ma sama xaalis. d'accord pourquoi xaalis bi ñu ko àttee mook Sonko dégg ngeen mu wax ci moom li mu gën a focus tey mooy nañ ma génn réew mi. aji instant yi passeport lay joxe ay génn réew mi Sonko mii lañ war a wañaar loxoom ñaar fukki million yi mu war a dàmp xale bi mu jox ko dàmpaay bi. mu yaa ngi wax leneen ñu waxuñu waxu Sonko de ñu ñoo ngi ci Adji ak Gabriel moo Gabriel kay nañ wañaar seen loxo ñu jox ko moom moom je pense que ni mu xool des fois da koy laaj li mu mu tontu ci aji nga ma laaj aji mais nga xamante instant yi dafa am Euh, bëgg-bëgg àddunaam yëpp mi ngi nekk ab passeport bu mu génnee dëkk bi mhm. jàpp na ni peut-être que entre Dieu mais bu génnee Sénégal foofu la mën a amee jàmm peut-être que waaw que loolu waaw peut-être jàpp na entre Dieu mais bu génnee Sénégal mhm. dina am jàmm ci li nga xamante ni moom la xalaat mais amee bu fekkante ni tey yow am nga borom doole boo xamante ni yëkkati 10 millions sànni la ko ak zéro la yemale est am jafe-jafe tamit ñu jëntir la passeport léegi Abdou yow comme ni nga ko waxee léegi ki nga ah. xamante ne moo di Adji koo xamante ne kilifa la moo ko jël may ko li nga xamante ne moo di 10 millions loolu moom kenn du ko ko bañal parce que xaalis moom yaakaar naa waaw cent francs nit sax bu la neexee sax nga yëkkati milliard may ko nit ci bu la neexee mhm. mais nag dama ni xanaa nag ku la mën a may 10 millions war na laa lijjantil nag boo nekk ci jafe-jafe passeport diplomatique boo xam te ne xanaa war na ko wala yow mi sax ah. xanaa ñàkkoo koo xamante ne waaw bu dee Adji Sarr li ngay li nga sa xarit la comme ni nga koy waxee war ngeen koo mën a lijjantil loo xamante ne mën na mën na génn dëkk bi comme moom stabilité comme ni nga ko waxee kon yow daal soo ma la déggee suñu passeport diplomatique ay kayitu gerte caaf la daal dañuy jël rek jox ku la neex mais même passeport moo jafewul mais gis nga mbiru Adji Sarr. Hmm. tey li ma koy wax ni mu def ndànk moom na def ndànk dal situation yëpp dina ko génn waaye Adji Sarr mënoo koo jël ci réew bi rek jox ko passeport rek visa rek nag sànni ko benn réew mu dem. Hmm. du demee noonu. aji tey dafa nekk koo xam ne ay nit dañ ko maanaam.